asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan ci chaîne bi ñoo ngi leen ñaan nga abonné te activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal nga bokk ci ñu ko njëkk gis wéy di like wéy di commenter également te di partager vidéo yi c'est très important gars yi kooku di Lamine Camara Lamine Camara la révélation du euh, Sénégalais euh, cette saison donc mi ngi noonu commencé na football ak équipe réserve bu FC Metz donc gannaaw bu mu fa ñëwee moom midi Lamine Camara commencé na fa football donc mu nekk loo xamante ne ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax et que voilà fofu la jëk commencé balaa mu ñëw ci équipe pro bi donc mu nekk lo xamantene lu baax la ci mom donc dina mëna progresser bu baax baax et que dina mëna tenir rythme da nga am jafe-jafe ci sa wàllu dund rab daf laa sonal cat jàpp la loo yaakaar mu tas sa wërsëg dafa tëju sa loxo bënn loo yor du taxaw nga bëgg boroom kër wala soxna mu jafe la lool sa bopp jaxasoo sa ëllëg jaaxal la lool loolu yëpp bu la dalee solution bi mooy dawal seeti sëriñ Mohamed Jaxate asraar di borom xam-xam bu mag bu yàlla may ci li saxaar bu leer ak ñaan ci wàllu lasraar yow mi bëgg a tukki bitim réew visa jafe la lool wala nga tukki bëgg ay kayit ngir ñibbisi ci réew mi mu jafe la lool dawal seeti sëriñ Mohamed Jaxate lasraar amu ci morom lii di nopp boole ay ànd bëggante bëggante bu jéggi dayoo ak listixaar bu leer wax la say mbir ba nga xam ne kii gis na la loolu ñëpp manqué woon nañ ne Serigne Mohamed amu ci morom ngir jokkoo ak moom woo ko ci numéro téléphone bi 77 334 83 80 wala 78 201 82 44 ak Serigne Mohamed Diakhaté Asrar aajo yëppay faju